Abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmmal kàddu mag ñi. mbaa xam nga ni de baat yi ma lay bëgg a wax ku ko wax téeméeri yoon saa yoo jullee ba pare wala sax bis bu nekk téeméeri yoon wala lu mu gàtt gàtt ci semaine bi nga def ko ñetti yoon yaakaar naa ni def ko bis bu nekk téeméeri yoon yomb na. am na ay yiw yu rëy rëy yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ko wax na ni ne ku ko def yiw yooyu yàlla daf la koy defal kon mbokk bul ratal li mbokku yonent bi sallallahu alayhi wa nee na baat yii may waaj a wax ku ko wax téeméeri yoon nee na ku ko wax téeméeri yoon nee na kooku dafa mel ni koo xam ne dafa goreel fukki jaam nee na ku wax baat yi téeméeri yoon nee na kooku dafa mel ni ku goreel fukki jaam te ku goreel benn jaam rekk mooy yow yàlla daf lay goreel ci safara rawatina nag mu ne ku wax baat yi téeméeri yoon yàlla mu ne yow dafa danga mel ni ku goreel euh, fukki jaam waaye mu teg ci tamit ne yàlla daf lay bindal tamit téeméeri yiw daf lay bindal téeméeri yu baax téeméeri yu moom la lay yàlla di bindal waaye tamit daal lay effacer téeméeri bàkkaar waaye tamit nee na ca bis boobu de ku wax baaj yi nee na amul kenn koo xam ne def na li gën yow li nga def mooy nga wax baat yi baat yooyu mooy yan baat mooy لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مونغي بانتو تيميريون بعد ليمي فري موي امول بن غور بو خامني موي يو جامو جامو كو نيك نجيرين نياكو كو جامو نيك لورانغي الى الله كل يالا يالا ريك موي يو جامو mune yalla mom de wahdahu mom jamu la wara jaamu la sarika ken warul bokale lo ñel yalla ken warul bokale yalla mom mom yalla mom mom al mulku nguur yalla rek mom nguur ndax nguur yep nguuru yalla rek modul jeex ndax gis nañ ni bo fi falee président bu amé 5 ans mandam jeex dañuy demat élection bu ko askan bi voté loolu day dem te lu mu yag yag yag tamit dem rek ngay mujj motax mu ne yalla rek mom nguur ndax nit ki même buñu la bo nekkoon président même suñ la tamit bis dina jot nga faatu kon yalla rek mom mom nguur waye tamit yalla rek moye yeewoo cant yalla rek lañu wara sant ndax yalla xéewal gu doomu aadama am yàlla moo ko defal kon nag mooy baat yi laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lawul mulku wa lawul hamdu wa huwa ku wax baat yi yoon yàlla def lay bindal téeméeri yiw efalsel la téeméeri bàkkaar waaye mu teg ci ne ku wax baat de danga mel ni koo xam ne danga goreel fukki jaam te ku goreel benn jaam cër boo goreel ca jaam boobu cër boobu mooy doon njot sa cër ca safara waaye nee na ku wax baat bii de nee na ku wax téeméer yoon amul kenn koo xam ne def na li gën yow li nga def kon nag mbokk lu mu gàtt gàtt bis bu ne war nga fa war fexe baat yi nga koy bamtu téeméeri yoon ndax sëriñ diw jox na ma nangam sëriñ diw jox na ma nangam baax na dëgg waaye li nga xam ne yonent bi sallallahu wa sallam moo ko joxe yaakaar naa loolu amul lenn lu ko gën a garanti. kon mbokku tey loolu lañ leen indiloon muy baat yu ama am solo ñu leen ko doon baaxe waaye di ko baaxee waale suñu bopp dinañ ñëw ak yéen ci beneen vidéo incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.